cité ay koñ yoo xam ni foofu. tey tey doo fa gan tey dama woo sama xarit yi ma am ndar am naa ay xarit yoo xam ni ki ma gën a jege ci ndar. Hmm. Oulimata Sarr ndar la dëkk. Hmm. dama woo ne ko naa ko procureur mu ñëw jàpp la. ma Maxu Mbengue ak sama xarit yooyu maa xam nga der li xew ndar bu neen sax ndar di tooñ waa ndar. Hmm. vraiment du ndar. li xeeñ li xew gett ndar. parce que dina ma bett trop li xew Ndar li xew bërki démb beneen koñ ci Ndar def ko góomu ndax nag ndaar dëkk ma fa waaye dëkk boo defee ñaar fukki at ak juróom-ñaar ba yàlla nga dëkk fa nag. j'ai fait vingt sept ans à Saint-Louis ba fi sama kër nga fa samay doom nga fa samay njaboot nga fa. kon génn ma Ndar yóbbutul mes enfants sont nés à Saint-Louis. xam naa bu baax gerte Ndar am fay nit am fay xarit am fay mbokk am fay ànd jàmm am fay soppe mais li xew Ndar. balaa ma ko wax man li may njëkk def sax mooy gërëm les forces de l'ordre man yërëm man je remercie je félicite la gendarmerie police ñëpp parce que dañu dañu sonn pour dimbali réew mi dañu jaay seen bakkan xaw xawoon mën nañoo faatu ci ci affaire yi am nii te kon du mujj fenn ñooy perte rek kon loolu buñ defee lu toll nii dañoo war a gërëm avant dara xew en tout cas maa ngi gërëm police bi. di gërëm gendarmerie bi kilifa police bi xaw ma ko mais maa ngi koy gërëm commissaire bi ñu mu àndal maa ngi gërëm le colonel Cissé ak tout la gendarmerie région bi ak ñu leen jàppale lépp ndax wax dëgg yàlla seen xam-xam ak seen xarañ moo tax bakkan tëddul démb hmm. barke démb bu seen xarañ bu doon seen xarañ bakkan ba doon tëdd à Saint-Louis ndax li xew ndar kenn mënu ko kenn mënu ko kenn mënu ko hmm. bu mu la ah, lu tax bu mu bettee du njëkk te biir doon bu mujj ay waxal jàmm. maa la ko wax maa la gën bëgg jàmm. Mm. mais man dama xam ne du njëkkul waaye waxoo njëkkul te du mujj. parce que dañ ko réglé wul. Mm. dafa yàgg di am du tey la am musa am lii c'est bi bu ñu xool rang bi bi ñaata la am mais ñaata leen taal euh, et puis nga ma ma ma gërëm aussi waa Sénélec. Mm. ma saw leen ay doomi jàmbur yu jógee ci dëkk ak dëkk affecté leen seen direction ñuy liggéey courant lañ leen def loolu luñ seen yoon ci licence de pêche lan mooy yoonu Sénélec ci ay licence de pêche. ba ñu taal seen direction moom lañ leen rey ay xeer xol xeer doon dal ci biir direction bi ay jigéen ay jabari jàmbur ay doomi jàmbur ay ay innocent ne fi di liggéey ñu na moom lañ leen rey ci Mali Fro donc man je les félicite naa gërëm waa Sénélec di leen masaw di leen ñaanal vraiment yàlla sàmm leen li am solo mooy gis ngeen nit réew bu ñu ko bokkee dañu waxante dëgg réew kenn moomu ko gendar pàcc la nord Sundooni pàcc la Lodo pàcc la Mbuur pàcc la dakaar pàcc la ku nekk ci am pàcc ci réew mi Sénégal boobu nekk foofu ndar moomu ko Sénégal ko moom su fekkee ne man doon naa comprendre vraiment doon naa comprendre ñu ni waa Guet Ndar dañu am problème ak état Sénégal wala waa Guet Ndar dañu am problème ak meeru Ndar wala waa Guet Ndar dañu am problème ak beneen quartier wala waa Guet Ndar dañu am problème ak benn groupe association sénégalais. ma ni loolu histoire am na ci man nga d'accord comme mun nga may d'accord histoire yooyu ci réew la waaye quartier bu jóg ne état Sénégal par force ngay wax réewu jàmbur mu jox ma licence ma dem nepp fa par force ba ma taal réew j'ai pas compris ma mun ko expliquer et li gën a garaaw licence de pêche yi ñuy xeex démb ñëw na dak ndar bi bi ko ministre bi wax léegi yàggul soriwul yaa ngi ko seet ñëpp ko seet bi ko wax les les les dignitaires à la TFM mu ne non seulement message de pêche ñëw na man maa téléphoné chef de service bi ne bu ko laal bul wax tànk waa Gendar ñëw ñu fekke lépp ñu woo leen ñu ñëw fekkee naar yi ne suñuy licence gi nii voilà les conditions pour am ko et di fay tous ces kii ñoom ñu d' accord signé un procès verbal naar yi signé état Sénégal signé ñu leen kuy fay ñu ñëw jox la sa licence non seulement fayoo nga xëy taal dëkk bi nga jox par force man man honnêtement man mënu ma décrire. li xew get ndar sama dépasse xaw ma vraiment en tout cas lii moom ñi ko def war nañ ko moytu parce que dañu bokk réew mi ak ñeneen rafetul ñi nga xam ne ñoo ab obligation sàmm nit ñi parce que marché bu am doole bi ëpp ndar bi ëpp doole ndar foofu la nekk ay innocent day dem ci marché bi xamoon nañ leen rey l'État a l'obligation de protéger la population. D'accord, les politiciens du pouvoir comme de l'opposition. Mm. sinistre yi ñu def ci problème nañ ko baax bu ñu jaay nit ñi waa ndar mérito la ñu di nax. non mais politique lu mu fi. no parce que non gis nga bi ñu xeex ba démb léegi les politiciens discours yi ñu tenir de l'opposition comme au pouvoir tout le monde. Mm. je tous les politiciens. Mm. ok Charles. Euh, bu Guet Ndar. <coughs> der lu lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru te suñu kaw lay dal. ce qui est en train loo xamante ni mu ngi passé fii si biir Sénégal bi c'est inacceptable dañu waxante dëgg gis nañ Mbour yàggul Saint-Louis gert derlu fa xew c'est inacceptable Kédougou c'est inacceptable avec les gendarmes Tamba c'est inacceptable Sénégal boo xamante ne moom laay gis ni fu ñu jëm ni baaxul mais ma je suis entièrement d'accord ak euh, suma xarit Birima lu mu fi wax faaw ñu wax dëgg xam waxante dëgg fii nga fi invité kenn ñu posé problème bi yaa a quelque temps te lan lañ fa waxoon jàkkaarloo boobu dina toj toj na fii la fi kenn toog ne par dañuy dem pêcher dans un état souverain qui s'appelle la Mauritanie mais foog faaw ñu respecter Mauritanie faw nu respecter Mauritanie. Charles bariwul li ngay jubóog Birima de. non dama ne dafa am loo xamante ne quinze policiers blessés. c'est ça commence à faire désordre Mbour ce qui s'est passé ça fait désordre Kédougou ce qui s'est passé contre les gendarmes ça fait désordre dëkk bu amatul service d'ordre dëkk boo xamante ne service d'ordre commencé na ragal dans le contexte boo xamante ne ñu ngi koy dund nii avec le terrorisme wër ñu ceinture ñu ñu nekk dans une ceinture de feu mais xanaa ñun xalaatatuñu mais na kilifa dëkk yi faw ñu toog waxtaan suñu biir lu fi xew c'est inacceptable fii am na ñoo xamante ne tubaab yi ñëw nañ fi torox leen les jours ñuy wax seen tur xaadim rasul bamba hmm. ñu dem si Maodo ku si ne ñu torox lan moo xew qu'est-ce qui s'est passé hmm. nous les descendants faaw nu toog waxtaan il est vrai que aujourd'hui bu ñu toogee xool suñuy politiciens je suis d'accord avec kii parce que dafa am loo xamante ne boo ko si kaw à temps lii lay jur mais faaw ñu toog waxtaan suñu biir mënatuñu continuer di défier les forces de l'ordre comme je l'ai vu mais mu doon loo xamante ne doy waar tu penses que nous sommes en situation de guerre dafa yomb comme biir ma ne ko nga jël say xeer sandi ko Senelec mu am ñoo xamante ne say mbokk sénégalais ñoo ne si biir xeer yi di dal seen kaw nga yàq loo xamante ne ay contribuables ñoo koy fay c' est pas les contribuables de Guet-Ndar c' est pas les contribuables de Saint-Louis c' est les contribuables de tous les sénégalais il faut ñu toog ñu wax defe naa kilifa tey am nañ rendez-vous boo xamante ne si ma gis-gis mooy que des parce que koo gis am nga tal koo gis am nga kilifa ñun ñëpp am nañ fi ay kilifa c'est bien de nous réunir parfois si ay yenn yenn euh, yoo xamante ni moo fi am mais faw tam nu toog ci biir waxante ne ay dëgg mënatuñu tey par rapport avec la Mauritanie et par rapport ak la Guinée-Bissau parce que c'est au nord da ngay dem dans le nord c'est comme ça nga ñëw au sud c'est comme ça toujours des problèmes am na mais je suis désolé am na pàcc géej boo xam ne moomuñu ko moomuñu ko Mauritanie mooy décider comment ça se passe Guinée-Bissau décider comment ça se passe Cap-Vert décider comment ça se passe on est quand même là à nous de voir est-ce que amul beneen politique boo xamante ne par rapport aux licences de pêche yu ñuy octroyer les mm-hmm. étrangers mm-hmm. xool lu ñuy def ba suñuy ba suñuy mool yi suñuy pêcheurs yi rester au Sénégal mun ko mais mënatuñu continuer noonu les familles chaque année ñu ne la am na ñoo xamante ne dans le sud jam nañ leen bal wala na ñu mm-hmm. au nord c'est pareil ça ne peut pas continuer comme ça comme am na ko leen fi toogal dinañ ko laaj ñoom seen gis-gis vraiment pour ñu dépasser problème boobu naka naka lañ ko jàngatee Ablaye Cissé dafa mel ni sa chronique hebdomadaire bi ngay def sur RFM te lii xewagul woon bi nga koy wax dafa mel ni yow maire xaw ma ndax bu ci wolof bu baax noonu lañ koy wax euh, ndax euh, problème bi junj junj nga ay voies de solution yoo xam ni bu doon dem nañ si duñu ñu agsi fii. non xëy na yéene laa waxee. Mm-hmm. yéene bi mooy c'est-à-dire que mm-hmm. mer toj. defe naa ni tey gis nga ki fi toogal waa Guet Ndar. Mm-hmm. kersa la fi toogee. voilà kersa la fi toogee doon na neex tey sax. ñu jàkkaaroon ak koo xam ne sañ naa assumer mm. li nga xam ne nii moo am parce que bu dul violence bi gisuma sax lan moom la ñu mën a justifier décider ni dañuy manifester parce que boo xoolee manifestation bi pour ku comprendre problème mu licence de pêche ak problème mu Guet Ndar ren ça se justifier le moins possible parce que problème yi pratiquement réglé woon nañu ko bu ñuy wax te dëgg tax li tax mool yi sax jug ne dañuy manifester ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que licence yi c'est vrai dañu koy attribuer tiers parce que baax na ñuy expliquer nit ñi xam mm-hmm. attribuer ko par trimestre ci li ngay fay mm-hmm. ñoom ñuy jàpp ni am na trimestre boo xam ne du trimestre dem géej donc daf leen di teggee ko mm-hmm. te loolu ki nga xam ne nii moom ngay waxal bu la tegee kay mu compter at yow nga ne man am na ñetti weer yoo xam ne nii du ma ca dem géej kon duma ko fay yaa ngi tooñ benn ñaar xam nga bu ñu demee ba alamaan tegu ci kaw nit. nga xam ni dafa teggi yoon. parce que alamaan moom fu mu tegoo ci kaw nit da fekk nga tegg yoon. maintenant booy ñaan njekk aussi def naa ñaan njekk eggul ci xataraayu. parce que xataraayu pour li ngeen ma teg ci daan dafa diis yaa ngi yokk réeroo ci problème bi loolu ñaar ñaar yëpp tooñeel la. erreur la ci seen côté mais comme. moom mi leen fi toogal assumé wul manifeste assumé wul violent Birima dafa wax léegi sax ni Guet Ndar la ma yaakaar ni sax bu ñu waxee Guet Ndar sax yaatal nañu ko. Mm. parce que même ci ñu doon filmer ci image yi yaa ngi ciy dégg ñoo xam ne ñu ngi ay waay bàyyi leen li ngeen di def donc affaire yi. Mm. Guet Ndar yëpp sax mënuñ leen ko mënuñu ko maasaale ne waa Guet Ndar la am nañ kay ñu ko sooke mais. mouvement de masse moo demee noonu. Mm. gis nga boo sookee dara. muy fitna doo xam fu muy yem. te mëriirandoo nag. ñooy yokk yëf yi te gis nga 32 personnes yi nga xam ne jàpp nañ leen mënoon ne sax kii li ñu doon manifeste lu ko yitteel la parce que amul kenn ku ci koo xam ne ni.